ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgalaat ñu daje ci am néegam fas yéene jël benn bind ci diine jëm wàcce woon ci ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey jii moom la ñu jàpp ne mooy bis bu jëkk ci la ñu tuddee jumaada saniya ca mooy sunu maam yi daan ko wax maamu koor ah naam daan sunu maam yi daan ko wax maamu koor naam mu tombeeg le vingt cinq décembre ca la nga xam ni mooy deux mille vingt deux ñu ngi topp suñu téere bi di minhajul muslim bu cheikh jabir al jazairi ba yegsi woon tey ci alfaslu sadis muy juróom-benneelu bunt ci téere bi di wax fi nikaax ci sëy ak la aju ci sëy mu bokkit bind bi gën a am solo ci wàllu fiq mbokk moom mooy sëy ak la ca aju bal boo demoon daanaka fiq sax soo ko doon xool mën nga wax ceer ba ci loolu lay wax looloo tax dars yi ñu weesu yépp dars yu am solo la waaye doomu aadama bi mën ngaa dund doo ko dund doo gis ko ko dund amma fi ñu toll nag moom wareef la ci bépp jullit mu xam lu aju ci wàllu sëy ndax suñu borom yàlla doomu aadama yi seen cosaan mi ngi koy def ci sëy boo sëyul it da nga nekk ak ku sëy loolee kon di bind boo xam ne warees naa fexe ba góor ñi jigéen ñi ñëpp taari ciy jot ndax kat boo xoolee tey affaire sëy problème numéro un la ci société bi bu dee yàlla nattu na la nga nekk ay imam da ngay gis ni li ngay jot ci ay jafe-jafe ci couche sociale bu nekk intellectuel yi gën a kawe borom alal yi ñu ñàkk waa taax waa kaw jafe-jafe yu metti day am ci wàllu sëy lan moo ko waralit mooy aada yañ doon ne woon suñuy maam réer na ci fi ñu diine tëralal ñu war faa jaar lu bari ci doomu aadama yi xamuñu ko kon incha allah su dee da ngaa yor sab téere mu ni lii day mooy faslu saadis juróom benneelu wàccuwaay bi am ci téere bi lum la nar a jàngal mooy fi nikaahi ci sëy wa talaaq wa talaaq ak fase wa rajaa ak delloo kañ fase woon wal xulu ak summikonte wal li'aan ak rëbbante wal ilaa ak waat ne dootoo jege sa soxna wa zihaar yemele sa soxna ak sa yaay wal idat ak la nga xam ne nii mooy in idda yi ñuy iddawoo wa nafaqaat dépense yi ñuy jox soxna ya wal xadaana ak njaboot ga bu dee dañoo teqali ko kan moo ko yor mi ngi noonu kon mu wax la fii juróom-ñeenti bunt yoo xam ne moom la nar a jàngale almadatul ula bunt bi ci jëkk mooy fi nikah lu aju ci sëy taarifuhu buñ lay xamal luy sëy an nikahu aw zawaaj na doon da ngaa wax nikaax wala zawaaj lépp li sëy liy firi aqdun yuxillu li kullin min azawjayni ab pas-pas la buy daganal ci diggante ñaari way denceente ya al istimtaa bi saahibihi ku nekk di mën a bànneexu ca moroomam mbokk góor ak jigéen lenn dong ngay tax ñu mën a bànneexoo ku nekk ca moroomam xanaa lu dul ab sëy ab sëy kese lu dul lu raar la ca borom ba dugal mooy yow mi amoon sab jaam bu jigéen boo xam ne yaa ko moom waaye bu dul loolu kenn amul droit muy dagan ci yow ngay bànneexu ci jigéen ci benn façon bànneexu lu dul sëy daa dox seen diggante ñaareel bi mooy xukmuhu lan mooy attey sëy ci lislaam attee mooy ndax dagan naag aram naag sopp naag ila axiri annikaax mashruun bi qawli llahi taala li ngay jëkk a xam yow julit mooy yàlla moo yoonal sëy yàlla moo yoonal sëy suñ borom nee na fankihu ma taaba lakum min annisa denc leen la nga xam ne dal na seen xel mi ngi noonu sa bëgg ngeen ko ci jigéen ña masna wa sulaasa wa rubaa tekk leen ñaar wala ñett wala ñeent fa in xiftum alla taadilu su ngeen ragee ne du ngeen mën a maandu fa waahidatan aw ma malakat aymaanukum fa waahidatun aw ma malakat aymaanukum na doon benn wala boog la nga xam ne seeni ndeyjoor moom na ko muy seeni jaam kon mbokk suñu borom nee na yow góor mën ngaa takk ci soxna yi loo xam ne dana la doy mën laa dalal ndax nit ñi yemuñu am na koo xam ne benn soxna doy na ko am na koo xam ne benn soxna doyu ko fankihu ma taaba lakum am na benn waay ci kilifa yi ñi ñuy tudde kilifa diine ñi fi jaaroon mu ne waaye yàlla nee na fankihu ma taaba lakum ñun dañuy takk di takk di takk di takk rek mi ngi noonu na lim takk jëg ne téeméer mi ngi noonu waaye mi ngi noonu bàyyi li fi ñoom ñëpp dem seen yoon dem dem ala kulli xaal suñu borom mu ne takk leen ñaar wala ngeen takk ñett wala ngeen takk ñeent loolee muy firi ba borom xam-xam yi firee ko soo demee ca caaxaankat ya nag ñoom nee nañ yàlla nee na takk leen deux trois quatre deux plus trois égale cinq plus quatre égale neuf kon mën ngaa am neuf am ñu gën a jéggi dayoo ne suñu borom dane par deux kon mooy deux deux takk leen deux deux quatre trois trois six quatre plus six égale dix quatre quatre huit kon takk leen bi dix huit gis ngeen waaye la ko li xaal mbokk loolu ay mbir la yoo xam ne ay caaxaan la yàlla mi xam ay jaamam bind leen moo yemale góor ñi ci kaat te wallahi ku kaat doyul quarante du la doy gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala it wa qawlihi azza wa jal bokk na ci waxi borom bi màgg ca tedd mu ne naam fankihul ayama minkum na ngeen dugal la nga xamee ni nii mooy seeni célibataire ci yéen fexe leen ba dugal leen ci ay sëy al ayama mooy célibataire yi sowaan góor lu ñu am jigéen wasalihina min ibadikum wa imaikum seen go seen jaam yi jaam yi ngeen yëg ak mbaax ci ñoom góor ak jigéen ewaay fexe leen ba ñu sëy te loolu yi tamit di ndigal bu suñu borom yàlla joxe allahuma lu dul naka sun maam yi doon dundee sun jamono yi tey ñun dundee woon ko noonu sun maam yi société bi ñëpp a daan sëy ñëpp a daan sëy tey jii fàccaam buñ demee ba gis ne mi ngi âgé dañuy xëy rek ne Salih Ndiaye jox nañ la ko mu neex ak mu naqari lay jël ñëpp lañ daan lañ daan fexe ñu sëy loolu nag bu ca ak tooñ amee it moo tax ni li ñuy dund tey li ñuy dund tey wallahi démb rek maa ngi am ay commentaire yu may jot ci ay jigéen yu nekk Arabie Saoudite di ko diis ay imam ñii naan am nañ quarante sept ans amuñu sëyiñ ñi naan am naa cinquante ans sëyiñ ñi naan am naa nangam ci diplôme yëpp am naa ko ci nangam yëpp am naa ko mbokk loolu da ngay gis ni benn fitna la boo xam ne mi ngi ñu dab ca wax dëgg yàlla ñun sunu maam yi xamuñu woon loolu kon fexe leen ba ñu sëy allahuma li ci suñu borom bi waxit mooy su ngeen ragaleen du ngeen maandu yëm leen ci benn mbokk maandu te mooy lan mooy ku ne ngeen jox ko ak xam ca maandu ci jigéen mooy nga mën koo dëkkal mën koo dundal mën koo yor su dee dafa nekk guddi mit ngeen yemale leen amma loolu mooy maandu mooy ku ne ñu jox ko àq ba mu yeeyoo mi ngi noonu yonent bi wala boog boo jëlee sa téere di jàng yow mu ne bayda annahu yajibu ala man qadara ala maunatihi la nga xamee ni nii mooy sëy mooy yoonoon nañ ko ay mënees na koo def waaye nag day war ci koo xam ne am na kattanu mën a yor soxna am na kattan ci mën a taxawu soxna wa xaafa ala nafsihi alwuqua fi lxaram te it ragal na ci bakkanam ne moom munta téye boppam ci jigéen yi ku mel ni dañ naan ko yow farata la nga dem takk jabar wa yusannu liman qadara alayhi walam yaxif al anat ca ragalul la nga xam ne moom mooy ak njaaloo koo xam ne ni nag moom am na kàttan waaye ragalul ci boppam day sëy day day njaaloo ji ku mel nii dañ naan ko demal tekki soxna ndax soxna sunna la ci sunna yeneen kii mboole seen suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne wala boog li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ya ma'shara shabab ay yéen ndaw ñi man istataa minkum al baa koo xam ne mën naa denc soxna fa liyatazawwaj e waay ni dem tekki soxna fa innahu aghaddu lil basar loolu mooy tax ngeen gën a mën a téye seeni bët ba du ngeen nekk di xool jigéeni jàmbur yi wa ahsanu lil farj moo gën a it fekk la nga xam ne seeni pay yi te loolu mbokk ndigal la bu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy même boo ragalul ay njaaloo wala lu mën a doon yàlla may na la kattan nga mën a sëy nga la waay sëyal la ci yeneen ci baax rek mooy koo xam ne mën na denc soxna looloo tax it yow jeune bul yàkkamti jeune boo xam ne amoo néeg amoo lal amoo fenn nga wëlbati ko naan da ngay takk doomu jaamur loolu ay problème la kon bala ngaa takk soxna xoolal ba am foo xam ne da nga ko fa mën a yor ngeen ànd nga mën ko dundal di ko mën a wodd lii nag boo demee ba man ko nga la waay demal takk loolu mooy tax nga gën a mën a téye say bët moo tax nga gën a mën a mucc te la nga xam ne mooy njaalu ndax kat ki nga xam ne yorul soxna njaalu da koy yomb lool mi ngi noonu looloo tax moom bu njaaloo woon sax dañ koy duma rek amma kii am soxna moo gën a mucc loolu tax moom bu njaaloo dañ koy rey gis ngeen wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam tazawwaju alwadud alwalud yonent bu ne waaye takk leen soxna yi leen sopp takk leen soxna yi mën a am doom fa inni mukaasirun bikumul umama yowma alqiyama man day damay puukarewoo ci yéen di damoo ci yéen yeneen xeet yi buñ daje yowma alqiyama te loolu it mbokk islaam dafa bëgg ab sëy ak cofeel lal ko góor wuruñu koo may soxna bu mu bëggul soxna wuruñu koo dugal ci sëy bu mu bëggul kon dañu doon waduut ñoo xam ne dañuy sopp seeni borom kër takk it ñuy am doom te loolu it borom xam-xam yi dañ naan dañ ko xamee ci ay sëram ak i tantaam dafa am famille yoo xam ne dañuy am doom am famille yoo xam ne nii dañuy néewle gis famille yoo xam ne ni mën nañ gis lu jógee ay lim ci ñoom ay benn doom la ñu am ñii duñu am doom mu ne nag takk leen ñuy mën a am doom ñu bokk ci it ne takk leen ñoo xam ne toll nañ ci am doom mi ngi noonu mi ngi noonu suñu góorub caamin nga daa ñëw ne waaw man daal utal leen ma soxna waaye nag ku dul mag du ndaw laa bëgg de mu ne ko ak góor gi ku dul mag du ndaw mooy lan mu ne koo xam ne passé na am doom te yeggagul ca màgget ga mi ngi noonu ala kulli xaal yeneen ci bale seen mu ne takk leen ñu am doom nee na yowmal qiyaama su xeet yi dajee damay damoo ci li ma topp masalan yonente bu taxawee ñu ne ah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne cinquante milliards ci jullit topp nañ ko loolu de yem ak yonente yi nga xam ne ñee ay un million la ñu am ak ay nangam ak i nangam kon loolu la tax yonente bi wax loolu mooy yokku xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moo aju ci wàllu googee amma ñetteelu atte bi mooy min xikami zawaaj ay xikmatuhu ana ban xikma lañ mën a gis ci yàlla yoonal ne sëy na am mu indi ci ñeent bi jëkk mooy al ibqaa'u ala nawi l insaani mooy ñu daal di desal lii di mandarga ay façon doomu aadama yi des ci kaw suuf bi tanaasulin ci ak juróonte naatijun ani nikah bu sosoo ci sëy ca mbokku àdduna dafa war a dox nit ñi dañ ko war a dëkkee léegi nag suñu boroom dafa bëgg bépp doom buy juddu fekk dafa jaar ci sëy mu bañ a doon ñuy juddoo comme ni bàyyi muy di juddoo ñaareel bi xaajatu kullin min azawjayn ila saahibihi mooy ñaari way dencante yi ku ne daa soxla sa moroom ci lii yàlla def ay li taxsiini farjihi ngiree mu fekk aw payam bi qadaai shahwati aljimaai alfitriya ngiree muy man di jooxe ba def banneexu sëy bi yàlla def ci doomu aadama mais doomu aadama lu dul da ngaa feebar di góor wala jigéen yàlla def na ci yow nga soxla sa moroom loolu nag bu sëy amul dañuy ni mel ne bàyyi may di ko wuti ci noo xam ne nii nekkul loo xam ne lu dagan la moo tax suñu borom yoonal ab sëy boo xamee ne nii ñu mën caa faj seen aajo boobe mu jural leen tuyaaba joo xam ne nii mi ngi noonu même bu dee doom amul it loolee dafa doon ak jaamu yàlla moom ci boppam même bu ñu xamee ne doom du ca am waaye ñetteel bi التعاون كل من الزوجين على تربية النسل mooy jàppalente ga muy jàppalente way dencante ya ci mën a yar seen njaboot wal muhaafazati ala xayaatihi ak waxtu la nga xam ne mooy dundam te mbokk njaboot gi dañoo soxla taxawaayu baay dañoo soxla taxawaayu yaay ba nga xamee ni lu ci bëri ci njaboot yi jóge ci famille yu tas day am jeexital ci seen dund jigéen ñi nga xam ne dañuy am doom ca amuñu borom kër yi ak ci bëri ñuy sànni seeni doom wala xale yu tumuranke kon loolu da ngay gis ne jàppalente googee rek jaroon na ab sëy am diggante way dencante ñeenteel bi tanzimul alaqa bayna ar-rajuli wal mar'a mooy ñu daal di nosee relation bi am diggante góor ak jigéen ala asasin min tabadulil xuquq ci fondement ku nekk di jox sa morom aq yam yayoo wa taawunul musmir ak dimbalante guy continuer fi daairatil mawaddati wal mahabba loolu lépp nekk ci biir soppante ak bëggante wal ixtiraam wa taqdir ak warmaalante ak màggalante te mooy doomu aadama bi daa bëgg ku ko yëg daa bëgg ku ko sàmm looloo tax suñu borom subhanahu wa taala dañuy wax feneen ne soxna yi seeni kiiraay lañu yéen it seeni kiiraay lañ ñeel leen hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna te mooy nekk néegu sëy jigéen dafay nekk loolu sécurité ci moom yow góor it nga am soxna day nekk loo xam ne lu lay protéger la su ko defee ku nekk daal di respecté sa moroom ku nekk daal di warmal la nga xamee ne nii moom mooy sa moroom lii mbokk dañuy gis ne moom mooy li aju ci atte bi islaam tëral sëy naka lay demee mooy lu ñu yoonal la farata la ci ku ragal njaaloo sunnal nañ ko ci ku ragalul njaaloo xikma ya ca nekk bari na lu mën a jur tuyaaba ju bari lu nit ki war a fonk léegi nag bu ñëwoon ci ab sëy nu muy demee ca mooy arkaanu nikah ana yan ponk mooy daje bañ ñu sëy bi moom sëy bu baax la yulzamu li sixati nikah yalzamu li sixati nikahi tawaffuri arbaati arkaan hiya dana lënkoo sëy ba wér fekk ñeenti ponk yi da caa am mooy tax ab sëy wér ponk bu jëkk bi mooy alwali ki nga xam ne moo moom doomam wala ndénkaaneem di ko war a maye naam ca islaam it dafa bëgg ab sëy ñu bañ koo foye looloo tax islam mayul rek yow nga daje xale bu jigéen bi rek ngeen daal di teel seen contrat sëy bokk loolu amul assurance looloo tax islam bëgg nga dem ci kilifaam ngeen toog wax ak kilifa gi kilifa gi ci boppam di responsabilité may la ko loolu moo gën a sauvegarder la nga xam ne mooy sëy soo demoon ci occident gi nga xam ne amuñu kilifa amuñu dara ñaar yi bëggante rek daje moo tax it bis ñetti fan ñeent ku ne dem sa yoon ñi ngi noonu amma alwali mooy kan wa huwa abu zawja ka ca jiitu mooy baayu soxna sa nga bëgg a takk awil wasiyu wala kam jox ndigal ca loolu awil aqrabu fal aqrab wala ka gën a jege ak ka gën a jege min asabatiha ci li nga xam ne dañ koy tudd ak geñoom muy wàllu baayam aw zu ra'yin min ahliha wala ñooñu bu ñu fa nekkul koo xam ne boroom cër boroom xalaatin bu rafet la ca njabootam ñii ñëpp nag bu ñu fa nekkul awi sultaan ka nga xam ne moo fa teewal buur ku mel noonu mooy féetewoo maye soxna sa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi doon na wax ni laa tunkaxu illa bi wali aw laa nikaaha illa bi wali ab sëy day du am fii ak li nga xamee ni wali yu amul mooy kilifa guy maye wa qawli omar radiallahu anhu omar daana wax ni laa tunkahu almara illa bi izni waliyiha kenn du takk soxna xanaa lu dul ci ndégalu kilifaam aw zi ra'yin min ahliha wala boroom cër borom kilifteef borom gisin bu bu jub ca njabootam awi sultaan wala boog nga xam ne bu ñu fa nekkul sultaan mooy ka taxaw taxawaayu buur moom moo koy maye loolu mooy la ñuy wax ci wali lan mooy ahkaamul wali waa wali yu woowu ci boppam nag ana yan atte la sharia teg ba ne kii moom wali yóbbu lislaam nangu ak wali yoom la walil wali yi ahkaamun tajibu muraatuha lii di féetewoo may soxna day am na ci ay atte yoo xam ne dañ koo war a sàmm bi ci jëkk kawnuhu ahlan li wala li lil wilaaya fokk mu nekk ku yeyoo nekk waliyu bi an yakuna zakaran baaligan aqilan rashidan xurran waliyu mooy kan fokk day nekk góor jigéen du maye moroomu jigéenam même bu yaayam baaligan xale bu ndaw du maye soxna aqilan ab dof kenn du ko woo di ko mayeloo soxna rashidan day doon it koo xam ne nii ko même bu passé ak xale it xàmmee na bu baax lan mooy maye soxna ak mayewul soxna sinon nit ki mën naa majeur fekk yooyu du ci xam dara xurran fokk mu nekkit gor ab jaam duñ ko woo di ko mayeloo ay gor mi ngi noonu kon lii mooy wax ci wàll googee ñaareelu atte bi an yastazina waliyatahu fokk mu daal di laaj digal ka nga xamee ne nii mooy kam lañu war a maye istazana waliyatuhu mu laaj ndigal kam war a maye fi inkaahiha ci maye gam ko war a maye mimman araada tazwijaha minhu laaj ko ndigal ci na ko dama la bëggoon a may diw in kaanat bikran su dee kami maye jànq la bu mustasi wa kaana alwaliyu aban ca ka kay maye nekk bàyyi directam waaye nag wa yustamiruha ay yatlubu amraha dana laaj ndigalam nag in kaana sayyiban aha su dee ne ka kay ka muy maye jéeg la aw kaanat bikran wala mu nekk jànq wa kaana alwaliyu ca mu nekk kay may xëyra ab fekk ne du baayam kon day wax fii rek mbokk bàyyi balaa maye doomam bu jigéen war na koo wax diw dama laa bëgg a may diw dama lay may diw looli mooy mu yëgal ko su opposé wul rek mën na koo maye amma bu dee ne ku mës a sëy ba pare su ko nee dama laa bëgg a may diw amul droit di ko maye tant que néewu ko waaw tant que néewu ko waaw su dee ne it kay maye du bàyyi direct mu bëgg a maye ab jànq fokk mu xaar ba jànq bi na ko waaw mu dog koo maye bàyyi rek moo am droit maye doomam bu jigéen fekk opposé wul mi ngi noonu amma su opposé loolu dañ koy jàng ni ci kanam moo tax mu ne li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na woon al ayyumu ahaqu bi nafsiha min waliyiha ki nga xam ne daa mësa sëy ba pare moo gën a yey ci bakkanam ci wali ba koy may wal bikru amma bu dee jànq nag tustahzan des na ko laaj ndigal wa iznuha sumaatuha amma ndigalam mooy nopp ga muy nopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne kii ma sa sëy ba pare moo gën a yey ci boppam ay waliyoom du ko may lu dul da koy may kum ne bëgg naa ko allahuma am na yenn ci ay borom xam-xam ñoom foofu la ñemale xadis bi rek mooy ki ma sa sëy ba pare su ko neexee sëy sans ay waajuram yëg ko waaye mbokk du loolu jumhurul ulama dañ ne waajur wi amul droit maye ko lu dul moo ne nañ ma may waaw lu dul moo ne nañ ma may waaye jigéen bu sëyoon fukki yoon ak juróom it du tax mu am kattanu ay waajuram nekk fa mu dem di sëy te ay wuli yoom joxuñu ko ndigal ci loolu yonent bi alayhi salaam ne bu dee ne jànqit nañ ko laaj ndigal mu ne ndigalam nag mooy mu noppi dama laa bëggoon a may Mor Thiam mi mu ne xale bu jigéen bi daal di noppi waxul dara ah buñ ko mayee sëy boobu day doon bu wér lu tax ndax jànqi démb ñoom dañ daan rusa taxaw naan papa bëgg naa dama xamul nag xadisu buñ ko doon utilisé tey moom jànq tey jii moom beneen affaire la waaye daal àlla kulli xaal loolu sharia wax mooy daal soo ko laajee na ko dama laa bëgg a may diw mu ne déedéet bàyyi amoo droit di ko mayee waaye dama laa bëgg a may diw mu noppi waxul dara ah su boobaa mën nga koo mayee mi nga noonu ndax loolu joxe ñu ndigal te loolu it tubaab bi am na fu mu koy waxee tubaab ne ne kii ne dit rien consent waaw doonte ne ni lañ cay dolli it un oui n'a de sens que si on a la possibilité de dire non moo di ne nit ki ki waxul dara ci mbir kooku nangu na ko waaye bi charte nag mu bañ a nekk ci ak ragal ndax am na kilifa yoo xam ne nit seen kaddu kenn amul droit di ko teg loolu it bàyyi amu ci droit amul droit teg menace boo xam ne nii doomu jigéen yi kum ci waxal doo nangoo teggi kàddam googee loole mi ngi noonu menace boobee day bëri day bëri loolu ci xale yu xale yu jigéen yi kenn ñëw na nettali na ma kenn ko bëggoon a may bëggu ko ba ko bàyyi bi yégee ah ma damay may diw mun a bëgg ko ana diw wala leen ma ko ñu ñëw mu ne ko yow man dama la dama lay may diw nga ne loo ci wax mu ne damaa sukk rek noo ko bàyyi loo def baax na ndax lu tax xam ne conséquences yi ciy juddoo waaye nag l'islam gisewu ko woon noonu islam dafa gisee ni bàyyi yaa ëpp expérience yaa nangam yaa nangam waaye nag su doom bu jigéen bala nga koo mayee ngallaawaay na wax waaw wala mu noppi mais bu opposé taxaw na bàyyi bëgguma ngallaawaay kooku bu ko mayee ni ngi noonu loolu kon mbokk moo aju ca la nga xamee ne nii mooy wàllu ñaareelu atte ba su ñëwee ci ñetteelu atte bi laa tasixu wilayatu alqarib maa wujudi man huwa aqrabu minhu mu ne nañ xam ne du wér kiliftiifu aji jege soxna si ca kaka gën a jege ma nga fa mu jéggi ko dem di ko may fa laa tasixu wilayatu al ax li ab maa wujudi al ax lil umm ma awjudu shaqiq masalan mu ne masalan benn ku jigéen a ngi ni nekk ak góor yum bokkal góor gum bokkal day ak baay ak góor goo xam ne baay rek lañ bokk ki nga xam ne baay rek la bokk ak moom amul droit di ko may di jig ji kam bokkal ndey ak baay lu dul ci ndigalam ni nga noonu lu dul ci ndigalam mu ne it wala wilayatel ibnu ax ma wujudul ax mi ngi mel ne buñ demoon ba fa nga xamee ne nii dafa gën a sori mooy soxna si ay waajuram faatu nañu am na frère bu buy dund benn doomu frère am ñëw ne da koy maye ca frère direct di dund loolu it dañ naan nekkul loo xam ne nii lu lislaam di nangu la ci wàllu googee ay mën na am balaa téere bee jeex dana teg tegle la nga xam ne noonu la wali yu war a tegalante ba nga xamee ni kenn amul droit de jiitu sa moroom lu dul ne daf la jox ndigal amma ñeenteel bi mu ne iza azinat iza azinat almar'a lisnayni min aqribaiha fi tazwijiha bu dee soxla daa ñëw ci ñaari jegañaaleem masalan ay frère am ne leen man daal jox naa leen saa bopp su ngeen gisee ku ngeen wóolu maye leen ma fa zawajaha kullun minhuma min rajul képp kenn ci ñoom am kum ko may fa hiya li awwalin minhuma soxna sa day ñeel kan ko jëkk a may wa in waqa al aqdu fi waqtin wahid bu dee ne pas-pas lu daa am ci benn jataay wala boo xamuñu ku jiitu batala nikahuhuma batala nikahuha minhuma day daa di neen la nga xamee ne nii moom mooy sëy ga am ca wàll googe kon biñ ciy mujjee mooy li ñuy tuddee ash-shahidaan mooy shahidaan mooy ñaari seede yi nga xam ne munta ñàkk ci sëy al-muraad bi shahidayni lañu namm ca ñaari seede ya أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال الأدول المسلمين mooy ba ñuy fas sëy ba na ko fekke ñaar wala lu ko ëpp ci ñu maandu ci góor ñu maandu ci la nga xam ne moom mooy julit ña mi ngi noonu li qawlihi taala wa ashhidu zaway adlin minkum suñu borom nee na seede loo leen ñaari ñoo maandu ci yéen te loolu ma ngi koy wax ci kuy fase soxnaam ak kay delloo soxnaam kon day gën a yey ba ñuy sos pas-pas bu njëkk ba ñaari góor yu maandu seede ko wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na la nikaha illa bi waliyin wa shahidayi adl seede du am lu dul mu am wali ak ñaari seede yu maandu donte ne léegi lañ gis ay njuumte ñuy dem ci mbooloo mu bari ñu ñëw woote dañuy takk ab sëy ñu ne waaw yow diw ak diw yaay seede mbooloo mi kon ñi fi des lu ñu fiy def kon ñoom moo dina ne dañ naan au minimum na am ñaari seede waaye borom xam-xam yi dañu naan maadaama ak seede dafa xaw a naam dana ko jàngale sax ci kanam mi ngi noonu ala kulli xaal au minimum nañu am ñaari jullit yoo xam ne ñoo seede fas fas ba te dañuy doon it ay góor lii di seedeeg jigéen duñ ko nangu ca wàllu la nga xam ne moom mooy sëy amma bu ñu wax ahkaamu shahidayni ana yan attee li lislaam tëral ci ñaar ñi war a seede sëy yi ba mu doon dagan wa min ahkaami haazal rukn bokk na ci attey ponk bi an yakun isnayni fa aksar seede nañ nekk ñaar wala lu ko ëpp an yakuna adlayni nañu doon it ñu maandu wal adala tataxaqaqu bi ijtinaabi alkabair wa tarki la nga xam ne moom mooy xaalibi sagair maandu ñu ngi koy xamee ci koo xam ne bakkaar yu mag ya kenn xamewu ko ko di wër di sàcc ka njaaloo ko ribaaka yu dema noonu loolu kenn xamewu ko ko ak mi ngi noonu bàyyi la gën a bari ci bakkaar yu sow sowaan yi mi ngi noonu fal faasiqu bi zina aw sh- aw aw aw aw shirbi xamr aw aw bi akli riba koo xam ne dañ koo xamee mu génn topp ci njaaloom naan sàngaraam lekk ribaam laa tasuhu shahadatuhu ku mel noonu kenn du ko woo di ko seedaloo li qawlihi taala zaway adli minkum ndax suñu borom dani na ngeen seet la nga xamee ni nii moom mooy ñaar ñu maandu ci yéen wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam wa shahiday adl ay sëy du baax illa bi wali wa shahiday adl comme ni ñu ko jàng woon sànq fokk sëy bi day am ñaar julit ñoo xam ne ñoo ko seede mu ne nag yustahsan sopp nañu al iksaaru min ashuhud ñu bari lool aji seede li qillati al adalati fi zamanina haza ngiree maandu ni mu tumuranke sun jamono ji war nañu bu ñuy mayeb sëy ñu bañ ko yemale ci ñaar waaye nañu woo mbooloo ndax lum néew néew am ca ñaar ñoo xam ne nii dañuy doon ñaar ñoo xam ne nii ñaar ñu ñaar ñu maandu lañu dama ja kon mbokk dañuy gis ne ba ñu xoolee lii mooy laytaay bala ñoo tekk sëy bi li ci des mooy li ñu tuddee siyatul aqd xam naa dañuy bàyyi ba dajawaat fi incha allah doogoo xool nu ñuy fase sëy bi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala rek moom mooy barkeel yal na yàlla wërsëgal ñu sëyi barkeel wërsëgal ko suñu njaboot ak njaboot ak bépp julit kon mbokk mi ngi noonu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain am bilal biir dafa des ah cinq heure bi dafa des ba tey waaw kon ñu jël siratul aqd bi rek siratul aqd bi mooy nu ñuy fase sëy bi mu ni la nga xam ne siratul aqd ab sëy ba ñu koy fas hiya qawlu zawj mooy wax jami wax kii nga xam ne mooy ñaan soxna muy jëkk borom kër ga aw wakilihi fi l aqd wala kam yónni ngiree mu fasal ko sëy bi mooy ñoo jàkkaarloog way juruwa wala kami mayeloo ne ko zawwiji nii ibnataka aw wasiyataka fulana ne ko dama bëgg nga may ma sa so sa sa sa doom bu jigéen wala ki ñu la dénk diw loole da ngay gis ne bu dee ko góor ka moo taxaw ñaanal boppam donte ne ñun loolu miinuñu ko fii heure booy ñaan soxna da ngay yónni waaye nag la nekkoon cosaan kay ñaan moom ñëw toog ñaanal boppam ñu noon doonte ne yónnee ga lu mën a nekk la wa qawli lwali laqad zawwajtuka aw ankahtuka ibnati fulaan su ko defee kay maye moom daa di ne ko may naa la sama doom diw may naa la sama doom diw loolee da ngay gis moom la ñuy wax ab pas-pas moom la ñuy tuddee al ijab wal qabul donte ne it contraire ba mënoon na am mooy waliyu bi jàkkaarloo ko góor ki na ko may naa la sama doom diw kooku ne ko nangu naa léegi ma may yooyu yépp mu lu mën a nekk la moo tax mu ne bu dee ne ku sox jëkkër ja moo jëkk a ñaan bàyyi ba may ko wa qawli zawji day wax kookee nga xam ne mooy jëkkër ja qabiltu zawaajaha min nafsi nangu naa sëy boobee ci sama bakkan te loolu it bu dee yow dañ laa yónni it da ngay gis ne da ngay ñëw ne sa doom diw day maa ngi koy ñaanal sama doom diw bu ko defee kooku ne la sama doom diw day may naa ko sa doom diw nga ne nangul naa ko bu ko defee sëy ba doon na loo xam ne ni lu wér la ahkaamuha yan atte moo nekk ci loolu mu ne wali haza rukni ahkaam am na ci loolu ay atte la ci jiitu mooy kifaatu zawj li zawja mooy kafaatu zawj li zawja mooy ki nga xam ne mooy ku góor ki daa war a nekk nawle ku jigéen ka bi an yakuna xurran za xuliqin wa diin wa amaana te mooy mu nekk gor am diini am kóolute mi ngi noonu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ida ataakum man tardawna xuluqahu wa diinahu fa zawijuhu yonent bi da doon wax naan su leen dikkalee ku ngeen gërëm jukkoom te gërëm diineem ngalawaay may leen ko soxna illa tafaalu su dee defu leen loolu ay mayewu leen ci baasu diineeg jukkoo takun fitnatun fi l ardi wa fasadun kabir loolu day jur fitna ak yàqu gu tar te mbokk baasu julit ñi mooy ñuy mayente ci diine ak jukko bu rafet mu ne nag buñ ko bàyyee am yeneen base yu ñuy mayente masalan am na koo xam ne du kum bokkulul du ko may am koo xam ne ku amul alal du la may am na koo xam ne kum bokkulul nangam du la may loolee mbokk da ngay gis ne mën naa jur fitna boo ko fekkeeg boo ko fekkewul la ci mujjoon mooy tasixul wakaalatu ay tusaxul wakaalatu fi l aqd des na wéral la nga xamee ne nii moom mooy yónni yónni keneen jox ko responsabilité ca pas-pas ba fa zawju an yaku an yuwakkila man yacha fa li zawji dana ñeel jëkkër ja mu jox ndigal tawkiil ku ko neex mu doxal ko loolu amma zawja fa waliyuha huwa allazi yatawalla aqda nikahiha amma nag bu dee ne ki nga xamee ne nii moom mooy soxna si moom kilifaam moom mooy ka nga xamee ne nii mooy fas fas fasu sëy ba amma góor yow mën ngaa ñëwal sa bopp bu ko say kilifa yëgul it dara newu ci mën ngaa yónni sa xarit mën ngaa yónni ku la neex waaye soxna si moom fokk ay kilifaam ñoo koy maye directement wala ñooy jox ndigal ko koy maye mi ngi noonu kon incha allah ñu bàyyi bilal nodd wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante kilifa yi ne duñ leen maye te ragal nañ tabbi ci njaaloo ala kulli xaal la ñuy jëkk a wax première erreur bi jëkk a am mooy xale yu góor yi gi jigéente yi bëggante ba kenn munte muñ sa moroom ñu koy doog a wax kilifa yi ndax loolu moo jur deuxième question bi ñu ragal ñu tabbi ci njaaloo waaye kay bu doon da ngaa ñëw gis doomi jàmbur ñëw ne da nga ko bëgg ñu ne duñ la ko may ragalul tàbb ci njaaloo waaye day fekk ne bala ñoo dem ci kilifa yi day fekk ne relation ba suuxat nañ ko ba kenn ci ñoom du mën a bàyyi sa morom loolu erreur la amma la nga xam ne mooy wàllu sëy wàllu atte la kilifa gi heure boo xamee ne nii dafa bañ ne du maye doomam loolee attekat bi dañuy xool kii lan moo tax du maye doomam su dee ne la mu wax valable na masalan kii di bëgg sama doom amul diine kii di bëgg sama doom jukkum baaxul attekat bi dana ko wax nga dëgg xaaral keneen mais bu dee ne waaj gis nañu ne moom ci boppam am na diine jukkam rafet na mën naa yor xale bi te loolu it benn charte la ci boo xam ne amoo dara dem di takk doom daan bu ko neexee ne duma la ko may amoo dara gis ngeen bu dee ne ñett yi daje na dañ naan ko yow ban lan mooy sa lay su dee ne lay ba mu yor dëgërul su boobaa dañuy convaincre ña nga xam ne ñoo sus ci moom ñu daal di maye soxna si waxoon naa la ne xëy na du ñàkk ay étapes yu ñuy wax ci wàllu sëy ala kulli xaal ñooñee nga xam ne ñooy ay wali yoom bu ñu demee ba yëg ne baay bi kat da koo bëgg a lor waaye amul benn excuse bu mu mën a joxe ñooñee kenn mën na ko ca maye su dee ne ñoom ñëpp it lànk nañ ne duñ ko ca maye. ka yor atteb l'islam ca loolee gis ne kat kii soxna si kii mën na ko yor ci soxna si bëgg na ko bëgg na ko loolee ñoom buñ ko mayee ca lay doog a valable ab chaîne la dal boo xam ne du lu ñuy woyeefal rek ne comme dal bay bi bëggul rek nañ dem ci suñ càmmu mayee ñi déedéet mbokk du demee noonu donte ne lu bëri loolu la ci suñu ndawi tey wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam koo xam ne dafa divorcé ndax mën naa may boppam sans pour autant ay waajuram yi ko loolu loolu wax nañ ko ci biir waxtaan bi mooy loolu munta nekk donte ne jamono internet bi ñu nekk nit ñi lu ci bëri seen bànneexu bakkan la ñuy topp muy seen sëriñ mooy am na ci lenn ci ay borom xam-xam yoo xam ne ni ñu interprété hadis bi ñu doon jox sànq mooy al ayyum ahaq bi nafsiha ñoom dañ nekkoon jigéen bu xisee ba sëy moo gën a yey ci boppam. bu waxee papaam papa jàmm lu muy wax it day dem rek tànn kenn mu mayee ko waaye mbokk julit loolee la ko borom xam-xam yi firi wax naa leen ko moo gën a yey ci boppam ci joxe ci ci wax kañ kan lañ koy may kenn amul droit di ko force ci joxewul ndigal loolee moom la jumhurul ulama wax su ko defee toujours li ñuy wax ci suñuy waxtaan mooy ñuy moytu bépp masala boo xam ne la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne lii dafa xaram nga la waay kenn ak ñaar ka ne dafa dagan bu mu tax nga def ko su ko defee daal jigéen doo mën a sëy ci sëy fexeel ba convaincre say wayjur te it léeg-léeg it dañuy yàkkamti mooy da ngay yàkkamti ne rek nangam rek góor gi bañ nga ne nangam nangam mais boo naxantee waa ji bu la bu dee bu dee waaju ko baax la jukkam rafet ni dinam rafet na mu won say waajur melokaan bu rafet comportement bu rafet mën na am bañ bañee it bu yàggee ñu xam ne kat lii ñuy bañ lu baax la ñu dellu ci gannaaw mais boo forcé ba def ko loolu c'est très dangereux man de du ma ko digal benn xale forcé ba dugg ci say say waajur yëguñu ko bu dégg ba cëg li ñuy fecc denc seen xol mooy yàlla na échec am ci ban ne waxoon nañ dëgg am déet su ko defee duñ la ñaanal kon dugg ci say boo xam ne waajur yi d'accord nañ ci dina ñaanal foo mën a toll loolee nga la waay moo gën lépp lu góor mën a am wala lu jigéen mën a am wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam aleykum salaam waswasu seytaan dafa am ñaar bu dee ne waswasu seytaan moom kenn mucc ci waswasu seytaan moom kenn mënu cee mucc moom ndax yàlla bind doomu aadama waswasu seytaan di am xanaa kay li ngay def mooy bi suñu borom wax min sharril waswasil xannaas yàlla yàlla nag mu musal ci waswasu seytaan ñaan yàlla musal la ci te it ngay def ay sabab baril ay zikrullah heure boo toogee wéet benn place ay xalaat dikkal la nga dem jàng dara wala nga déplacé wu bañ a topp ànd sa wéetaay yooyu waaye waswas moom ñëpp lay dikkal am na nag ñoo xam ne day dem ba sori ak ñoom waaye heure boo ko yégee waxal a'udhu billahi minash shaitanir rajim su dee was waswas ba daa jëm ci wàllu fas-fas wala mu jëm ci puusal pour def bakkaar waxal a'udhu billahi minash shaitanir rajim te jéem a xool beneen position ak leneen loo def ngiree mën a mucc ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah wa ala kulli xaal képp koo xam ne da nga am goro ahlul kitaab it bokk na loo xam ne nii loo war a leeral seen diggante mooy ñun sëy dagan na suñu diggante yàlla may nañu ko waaye nag lakum diinukum waliya diin da ngeen am seen diine ñun ñu am suñu diine dañ leen respecté seen diine ngeen dund seen diine mais ñu nit suñu diine dafa am fu mu ñu yemloo looloo tax ba la nga xam ne mooy seeni feet ak la nga xam ne nii mooy seeni doxalin yi ñuy def ci diine ji loolu yow jullit doo leen ci félicité doo leen ci jàppale doo leen ca félicité doo leen ca doon loo xam ne lu leen di jàppale la allahuma lu dul ci borom xam-xam yi di di di di wax ci caabi ñi dañ ci d'accord moo dina ñoom bu dee ñoo jël jox la ñoom ñoom ñooy ñooy sonn ñoom ñooy yokk seen i frais bu dee dañoo la tibbal dana dana dagal nga lekk ko amma yow ab nen sax amoo droit di leen ko ca jàppale amoo droit it di leen ko ca félicité lii daal mooy la nga xam ne nii moom la borom xam-xam yi wax ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala aalam waaw na waaw waala kulli xaal islam moom dafa prévoir jigéen ci kilifteef lay dund ba xëy dee imma mu nekk ci néegu sëy bu jógee ci sëy bi it papam moo ko war a yor wala la nga xam ne nii mooy ay frère am ci daanaka année yu mujj yi la ñuy gis jigéen ñi yor seen bopp waaye xaw ngaa mën a wax ne ba ba presque 1980 mën ngaa wër du ma téeméeri famille doo ci gis benn jigéen boo xam ne ma nga dem yor boppam tey nag boo xoolee appartement yi nekk Dakar daanaka appartement jigéen ñi ëpp yu góor yi waaw ñoom ñëpp beru nañ moo tax fitna bu dul jeex lay lay jur waaye jigéen moom dafa war a nekk kër jëkkëram wala kër baayam wala kër nijaayam wala kër frère am ñun loolu lañ xamoon en suñ càmm loolu la ñoom loolu lañ ma sa xam ah waaw wala doomam loolu loolu lañ ma sa xam amma jigéen dem dem beru wàllu boppam loolu xamuñu ko moo tax islam boo gisee ñuy xeex l'islam naan pourquoi ay miraas ñu jox jigéen benn jox jigéen naar parce que jigéen moom dañ ko war a yor gis ngeen jigéen dañ ko war a yor yow mi nga xamee ni nii moom la borom alal waarisu mislu zalik moo di ne sa sœur bi nga xam ne dafa tase këram bu ñëwee islam danaan la taxawu ko yaa ko war a yor loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax te loolu it moo yàlla mi bind mooy ki xam mooy sécurité ñeel soxna si mooy sécurité ñeel société bi yépp wallahu subhanahu wa taala alam waaw xanaa ñu mujjee ci mbokk bi rek waaw bismillah waaw waaw ndax sëy buñ takk ci réseaux sociaux waaw ah di sax mën na ko valider su dee ne kay waajuru moo ko maye mooy kay nekk na Europe ah gisante naag fàttam fi waxante nañu ba d'accord yónni yónne ne ay ay ay ay kilifa ñu maye ko même bu dee ñoom ñaar mosu ñoo gisante su dee ne wali yi moo ko maye loolee da ngay gis ne islam moom du wax ci loolu dara xanaa kay bu doon conseil dañ naan la ëpp naa def ëpp naa def takk soxna ci réseaux sociaux ëpp naa def ngeen ngeen bal ma histoire bi mu ci doon nettali benn soxna moo jëkkër ji ci réseaux sociaux la ñu xamante ah jokkoo jokkoo bañ a takk sëy bi léegi nag bis ah Moodu Cam bi war a ni bisi Sénégal mu ñëw xale bu jigéen bi ànd ak ay moroomam ñu dem aéroport di ko teeru bi wow Moodu Cam wàcceer yi dëkk te Moodu Cam tumi ni la soxna si rotteeku rek na mes dem yoonam fa la sëy ba yem mbokk tungu nii defuñu dara yàlla leen ko bindee seen max yi defuñu dara yàlla leen ko bindee man ñuul naa yàlla ma ko bindee waaye nag pour wax exemple rek ndax ki toog nga xam ne day dox réseaux sociaux di toog ngay wax ak moom man ngeen toog cinquante ans mënoo xam loolu ala kulli xaal daal ci gàttal moo dina ne daal lu dangereux la mooy ñuy takk ay soxna à travers les réseaux sociaux ku ko mën a moytu na ko moytu yonent bi alayhi salaam dañuy kenn ci yéen su ba suy takk soxna su mënee fexe ba gis la muy takk na ko def gis googu nag du réseaux sociaux gis googu du photo fàtca mën naam fukk photo ak juróom yoo xam ne nii bu ne mis la tey doon waaye bis boo jàkkaarloog moom wicc ko sa loxo loolu daal kon la ñuy wax ci wàllu googee yal na yàlla barkeelal ñu suñuy sëy jéggal ñu suñuy bakkaar wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain